ngeen jëf mbokk yi ñuy rafetlu seen ànd ak seen site dakarmatin.com fa seen a ñëw nuñ koy defee ay bés bu nekk dëgtal leen li nga xamne modi seen chronique seen chronique dañ ci wax ci miru khalifa babakar sall ñu bari nak dañuy wax ne limay wax ci khalifa babakar sall dafa bari manam mom taxul khalifa ababakar sall taxul lu tax ñuy wax ci mom modi bu ñu jappé ne mbir injustice daf ci laxasu dañu wara yëkëti suñu kaddu ba ñëpp dégg loolu ñu xam ne ëllëg ak sibir ba mu xewee fii ci réew mi am na ñoo xam ne waxoon nañ dañ leen bàyyil woon nopp may fàttali ne bés bi nga xam ne dañoo convoqué Macky Sall mu nekk président APR commissariat central di ko jiiñ ne wàllu blanchiment d' argent ci lay yëngu ak i nitam jour boobu ca kaw oto bu Moustapha Cissé nekkoon man mi maa ngi toogoon ca kaw ànd ak cameraman babacar mustapha lo di arange fuulu sandaga ñu jël sens interdit ful bi yépp topp ñu ñu dem ba clinique karaos ci noonu le mustapha cissé lo doon yëkkati kàddu di wax dóor doom làq doom du fi amee kon lu ñu yàgg taxaw ci li nga xam dañ ko jàpp ne injustice la du tay te bereluñ ko kenn Idrissa Seck bañ koy diko bundu xatal même taxaway bi lañu amone kon nak buñu jappé né ñun amna fo xamné non lañ fa wara taxawé dara dara ak kenn munta tax ñuy wax li nga xamné mom lañu gëm procès khalifa ababakar sall ak ñimu andak jamono yi bokuy dégg sax dafa melni farce lay nurok lu tuba bi di wax li ji demba kanji jël alarba bi ñu génn bettu ton kenn kenn la bettul déedéet ndaxte bés bi président Macky Sall waxee ne moom pression wala international warul mën a tax benn yoon la mu bëgg mu def ko laa ne indiqué na voie à suivre nee na juge yi bu leen dellu ginnaaw benn yoon waxuma ngeen wax ne da ngeen ni lire droit wala lenn lu toll ci bën bënu pousse lu jëm ci bàyyi xalifa ababacar sall santuma leen ko tey santuma leen ko suba te ñëpp d' accord ne ci réewum sénégal pouvoir exécutif noot na pouvoir justice noot na timit li nga xam ne moo di assemblée nationale kenn amatu ci xel ñaar ñëpp ci d' accord ndax ñay liggéey sax foofu ñoo ko wax ñay liggéey ci wàllu justice ñoo ko wax may fàttali ne du magistrat yépp la ñuy wax de déedéet pouvoir soxlawul sax contrôler tous les magistrats ci dossier Khalifa Babacar Sall pouvoir lu mu soxla contrôler procureur moo koy contrôler juge d'instruction ba moo koy contrôler ba pare nag ña ko war a mu contrôler leen bu waree dem cour d'appel ña ko war a atte mu contrôler leen cour suprême mu contrôler leen conseil constitutionnel mu contrôler leen ñaata magistrat la ñi ngi wax 500 et poussière ñooñu matuñu ñaar fukki magistrat kon soxlawul contrôler li nga xam modi magistrat yépp mais lii di pouvoir judiciaire te ay dossier di fa dem da ci bëgg a loxo kon dogal bi nga xam ne ba kànji rotal na ko ci li nga xam ne moo di dossier xalifa babacar sall bettutoon kenn te lépp lu ma leen wax ci dossier boobu gis ngeen ko jour bu ñu caution dama na leen day baral rek procès bi mais duñ ko bàyyi benn yoon loolu mooy bëgg-bëgg président Macky Sall président Macky Sall moo bëgg tëj Khalifa Ababacar Sall ngir dafa jàpp ci ay fiche de renseignement yi mu jot ne bés bu ko bàyyee ñu génn ci biti mu samp ndëndëm mën na wàññi dooleem bu baax a baax a baax te loolu du ko jural leneen lu dul deuxième tour te kenn xamul li ci gën a moo lu procureur général wax demb nee na mënuñoo annuler procédure bi yépp waaye benn partie ci PV d'audition bi war nañ ko mën a annuler ndax dañoo violer article 5 bu règlement bu UEMOA mais may laaj nañ ko jox PV bi ne ko monsieur le procureur lan la ñuy dindi ci PV d'audition boobu ndaxte article 5 bu règlement UEMOA buñ ko violé lan la wax dafa ne bés bi ñuy auditionné Khalifa Ababacar Sall ak ñi ma ànd ak ñëpp seen avocat teewul kon dañoo violé article 5 bu règlement bu UEMOA violé code de procédure pénale waa léegi procureur général nañu wax ci ban app le PV bi baax ak fan la bon ndaxte dañ leen auditionné ba procureur manadef a def conférence de presse dialogue nit ñi basé wu ci PV d'audition Bobu ne lii la mbay Touré wax lii la Khalifa Ababacar Sall wax waaye ñoom ba ñuy wax loolu seen avocat ñëwul teew kon PV bi kay bu ñuy annulé lépp la ñuy annulé ñu mënee annulé PV bi lépp nag te sa la ñu sukkandiku ndax PV Bobu la ñu jël jox ko juge d'instruction Samba Sall mu instruire door len mandat de dépôt pv bobu moy fondement wu procédure bi yépp bu baxul dara baxu ci amul lu ñuy gome bayil la des déedéet pv bi kay wala bok procureur bu xamé fan la ci pv bi bax ak fan la ci pv bi bon manam ban waxtu la gis avocat wu khalifa babacar sall mu tok ci wetu 5 euh, ñi ko doon enquête té sax amna ño xamné contane nañ ci ñom lool ba décorer nañ len ci mbir mi <laughs> dañ ci delu ci wat ak ay relation parenté yu doy war yu am ñen ñi seen jabar nek feulé euh ministère de la justice euh nek magu kenn ko xamné jégué na président lool yépp mi ci biir dossier bi ñen ñu gratifier leen nomelé leen ay poste lepp xam nañ ko dañuy sétan rek mais dañ né lool yépp jëru la wax instant bi jar wax légui nak procureur mo ñu wara wax ci ban app ak ban le PV bobu le loolu rek parce que mbir mi dang koy ñeme gis nga li lepp ñi wax ñoñu ko xam fouf def gymnastique juridique contorsion juridique rek la def mais lepp lo avocat défense bi di wax même avocat état bi xam nañ ko bu nous baaxa baaxa baaxa baaxa baax ko gëna xam lool ba menace buy poser ci magistrat yi ci Khalifa Sall ci journaliste ko ci pouvoir exécutif la baye Dakar Matin. ay teranga ak menace bi mom fofu rek la dossier bi bés ba leen deful li. ñu defante gi li da la di président Macky Sall ne magistrat yu am at yii leen yokal loolu yépp c'est pour mieux les contrôler ndaxte bu ñu demee ci élection ñooñu ñooy le cœur de l'organisation de l'élection ay cours d'appel ak yooyu yépp li muy def da koo xam bu baax a baax a baax a baax bu baax a baax a baax li am ba des nag lenn la malik lamot wayan na way wi ñëpp jaaxle mujj toon yegg sax wayam ndaxte ba muy tàmbali la tribunal ba tas tey jii cour d'appel dañoo toog nii rek xaar ngir dëggal wayu malik lamor ba mu woyoon cinq ans yi waaye ci loolu suñu bàyyi ju baax ja suñu maam ju baax ja maam abdulaziz da baax dafa am lam mu waxoon ñu bàyyi leen ak kàddu yooyu Dakar matin jéem a ragal yàlla jéem a ragal yàlla te topp ko te topp yàlla te di waxante dëgg te di waxante dëgg te ànd ci dëgg te ànd ci dëgg dëgg du wàññi wërsëg du wàññi wërsëg du tax a dee du tax a dee sa dee sa dee jotul te itam kat yàlla soxla na ku ko waxal tey ne yàlla kat soxla na ku ko waxal ñi mu jox xam-xam ba nopp ñi yàlla jox xam-xam ba nopp ñi mu joxul xam-xam waxuma leen mais ñi mu joxul xam-xam waxu leen waaye yàlla tànn la ci sa biir ci sa biir yi bokk waaye yow yàlla tànn la ci sa biir yi bokk tànn la ci saw xeet tànn la ci saw xeet abal la ci meloom yi benn abal la ci meloom yi benn boo xam ne dana la tax a tedd boo xam ne dana la tax a tedd teg la ci kanamu doomu aadama yi ci kanamu doomu aadama yi loo bëgg ñu defal loo bëgg ñu defal la ko loo wax ñu def loo wax ñu def ko doonte li du dëgg doonte li du dëgg sama borom jox la boobu borom jox la boobu ceeb teranga bi ni mu teranga bi ni mu tay nga jënde nga jënde ko sa bànneexu sa bànneexu bakkan wala lu neex wala lu neex nit wala wala ragal ragal ba doo wax dëgg doo wax dëgg doo digle dëgg doo digle dëgg doo santaani dëgg doo santaani dëgg lu ñu def lépp lu ñu def yàlla bañ yàlla bañ ko nga ci nga mu neex la mu neex la ngir sa bakkan ngir sa bakkan wala lu neex wala lu neex ku la neex rek xew ci Dakar matin bi ci dess ñu fessé ci luy jot jot na nak khalifa babacar sall mom lañu wara wax ak li ñuy wax nak dañuy jël suñu responsabilité assumer ko wax ko jot na mom ci bopam mu wone ak fayda jot na moom ci bopam mo ne fulla ak fayda parce que yaru yaru bi dam loos talal loxo sol yëre yu wex régler wul problème di jay républicain te ñing ko sekk ak na esprit bobu régler wul problème bi di jay yaru te ñing ko sekk ak wanewul loolu wul problème bi mom bernako ko na ko violer ay droits cour de justice CDAO wax ko ber na ko tey jii ne amul procès équitable lu ci des mu jël ay responsabilités lu tax ma wax loolu idrissa sek bañ ko tegee lañ ko teg ci met xablaay wadd ba mu jàkkaarloog ay avocat am daf ne leen lii wàllu yoon la seen affaire la du ma ci dugg sama yoon newu ci la ca des nag nekk wàllu politique bàyyi leen ko seen yoon newu ci man maa koy regle? te lii yëpp ñu jëmale ci Khalifa Ababacar Sall politique moo ci ëpp justice politique moo ci ëpp justice lool kon moom moo war a xeex am fulla am fayda ngir ñu wekk ko respecté ko ci ban anam est ce que jaratina mu taxaw jàkkaarloog ay magistrat ñu koy poser ay question muy tontu est ce que jarna mu taxaw ala bar ay avocat état diko kokoli ay agent judiciaire l'état diko ko procureur diko muy tontu di yaru yarul japunane fuñ tollu ni japp naane ne waram ak faydam ne eh yeen cour bi yeen ñepp lay wax ak Dakar matin amatuma dara lu may tontu ci ben question to kuma laaj duma tontu dara lama warona wax wax naa ko première instance pare naa ci yéen nag dogal leen li nga xam ne moom la leen sant ngeen dogal suñu kaw waaye amatuma dara lu may tontu ndaxte fi mu nekk nii cour de justice CEDEAO daan na état bu sénégal respecté wu leen ko lu tax man ma war a respecté ñëw taxaw fii ci cour bi ngeen may laaj may benn bennal ay xale yu ndaw di la mokke nga ne yow personnalité nga état ay xale yu ndaw a ndaw ay avocat di la kokkali di la yaa sàcc facture bi lii facture bi laa la nga waroon wax wax nga ko ba noppi kon dañoo jàpp nag sax ci violer sa ak ak sa yelleef waay waay nga am fulla dootoo leen ko mayati duma tontu kenn kenn laa dul tontu amaana mën naa ci dem ba ci na karim wadd defoon ne duma dugg sax si fourgonnette ñu indi tribunal dematuma sama cellule lay toog ngeen def la yeen def avocat yi nak nañ dem tok ci tribunal di ben banal sen droit à cour bi waaye man mi personnalité la dotuma ko defati dotuma ñewati nangu ben yeen ñumay may fayda di ma personnalité di ma laaj may ben benal duma ko defal kenn da ca dess nak walu politique la ay nitam nañu tok yëngu sen yëngu politique Khalifa Babacar Sall buñ ko annulé bokul ci élection présidentielle ben voix la ben voix kessé la ñaan nak mom nak ñom la xex bi dess ci ñom ño xam lañuy seen gay kon dama ne jot na mu wone fulla ak fayda lutax ngay tontu question yo xamne sax ëlëg ak sibir bu ñu joxe verdict bi duñ ci tenir compte bu ñu joxe verdict duñ ci tenir compte bañ lay door mandat de dépôt da nga juge bi xol la tek ñaari dossier bi couleur bu rose bi couleur xoma ban ngeen wax une heure de temps dégluwul sax li ngeen wax mu ubbi door la mandat de dépôt ñaari percepteur yi nga xamne ne nguur gi mo leen dugaloon ci affaire bi ngir rafetal rek mu placer leen sous contrôle judiciaire ñaar ñooñu ñepp xamoon nañ ne bu demee ci procès bi dañuy wor ngir gën laa dugal te moom la ñu def yàgg naa ko wax samay kuréel ne ñaar yi moom dañ leen ci laxasaay rek ngir ñu gën a dugal gaay comme loolu dund nga ko ci bureau juge d'instruction dundaat ko ci première instance waaye te sax cour CDAO dem ci benn juge d'instruction bi dossier Khalifa Bagar Sall à charge rek nga ci def am na jël dogal sax mayoo avocat Khalifa Bagar Sall ñu introduire li nga xam ne moo di recours taxawoo njaaxaanaay ci dossier bi kon Khalifa Ababacar Sall jot na nak nga wana full ak fayda gu toll ni nak combat politique ngay mené ci bir institution judiciaire tontuma ken amay tok ñewatuma sax far Dakar matin bu gëna jeex full ji nga wano Karim wad wane won nako jot na nak say nit nak bàyyi tribunal bi nonu dem liggéey liggéeyu politique sur le terrain li yalla def ñu xam ne la di len denk kaddu yi nga xamanteni sunu mam abdul si dabax moko waxon de te du jass jere ngeen jëf ci déglu bi ñu leen dig dajé alal euh, benen ak seen chronique seen site dakarmatin.com inshallah aina aadun aina fir'aun wa man malaka al wa walla wa asal ñoo ñep lañ doon problème di folé dem nañu tay la mi ngi ni dégg na président ci nek ana mu tay aina huwa al-alam jubóole nag seeni mbokk te doole ji leen yalla dénk ngeen di ci def lu baax bu leen ko xeex doole du xeex doole des ci yëre moo xatuma la doole yàlla te man zalama ibadallahi kana allahu xasmahu yawma alqiyamati labina gi nii génn na këram tey junni yaag chef ba mu daan toog ak jóg adduna yëpp di dégloog jeex na dara amatul tey lu dul ñeent fukki lexlaas ak benn ak di ko yaakaaral njëgal ci yàlla di ko ñaanal góorgóorlu leen adduna du kër adduna du kër adduna du kër teraanga yi leen yàlla jox bu leen ko walbati ko def ko gànnaay di ko xeexe seeni morom waxatuma la fekk sa mbokkum jullit ngay dal ci kawam pour ëllëgee daa dajeeg koo xam ne kii avocat du fa jariñ dara kenn rek la mooy président ba mooy juge ba mooy avocat ba mooy procureur ba dëgg moo fay avocat dëggay la yor teg yàlla ba mu xam ne kii mooy gañ avocat bi gañ na mu ne bay na la dëgg de nañ jaamu yàlla te bay pom yi te bay kattan yi ñu dénk nit ñi fab ko jox ñu di seen dooley bopp yàlla baaxee leen jiital leen suñu kanam Nous sommes doole yi jox parce ñu walbati ko tëgg ko gànnaay di ko rey vie. yàlla